ginnaaw bi ñu seetaanee épisode vingt sept ba pare dafa am quelques points yoo xam ne moom lañ bëggoon a waxtaane alors on a vu que ci épisode vingt sept bi après Cheikh bi mu annoncé Lalla que ni dafa takk Marème après quelque temps dañu gis Lalla mu tàggoo ak sagom donc tey nag waxtaan bii ñuy def bëggoon nañ képp koo xam ne am nga ci xalaat wala am nga ci réaction boo bëgg a def ci série bi nga envoyé ñu ko par message vocal ci suñu WhatsApp. moo ci sunu numéro bii di affiché donc kenn ku ne xalaat boo ci am mën ngañ ko envoyer par message comme ça après incha allahu ñu mën ko jàllale. alors tey am na ñoo xamante ni si ñu ngi naan Lalla dëgg la dafa tàggoo ak sagoom am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi naan Lalla li muy def moo ko tey peut-être que dafa am leneen lum ci jublu on ne sait pas encore parce que amaguñ suite bi am na tamit ñeneen ñuy posé wu la question. est-ce que réellement le fait que sa jëkkër takk beneen jabar rek mën na la loo déception boobu est-ce que mën na dofloo nit mais man personnellement je pense que oui parce que am na yenn affaire yoo xam ne bu la la bettee mën na indi trouble ba tàggalee la ak sa xel am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi laaj est-ce que laal la liggéeyuñ ko parce que bu ngeen dégloo bi mu tàggali ko ak sagoom ni muy waxee waxi liggéey lay wax waxi maraboutage donc le fait que muy mentionné waxi liggéey boobu noonu. am na ñeneen ñuy posé wu question est-ce que laal la tamit liggéeyuñ ko donc yooyu yëpp ay possibilité la mais man tamit je pense que tamit Cheikh lu ci bëri moom moo ko waral parce que façon bi mu takkee moom moo xaw a doy waar déjà moom au début bi muy dem di doxaan di def et tout da doon làqatu dem ba feeñ Lalla mettre na ko en garde plusieurs fois moom mu insister fippu dem takk comme ni ko sunu benn grand waxe woon ci vidéo yi passé tey nit ki boo nekkee ak sa soxna dem ba bëgg a takk deuxième femme da nga ko koy wax nga xamal ko ni ko am na ku ma gis bëgg ko takk deuxième femme ngeen waxtaan ci mais tey yow yaa ngi def li ngay def ci suuf di nëbbatu tey ñu jàpp la rek nga xam ne jàpp nañ la walla rek nga fipp dem takk jabar bi ngay takk sax xanaa tey moo nga bàyyi ba lépp dal nga toog ak sa soxna waxtaan ak moom ci njëkk ak teraanga xamal ko ni ko nag. wax dëgg loolu noonu sa droit la am nga droit takk ba ñeenti soxna jéem a waxtaan ak moom jéem ko conscientiser tuuti mais forçante ak moom dem takk ba pare door a ñëw di ko wax déception boobu mën na dof dofloo nit parce que déception yooyu noonu mën na jur lu bëree bëri loolay waral des fois ngeen di dégg ñu ni diwkat jabaram moo ko rey parce que lii tey gis ngeen laala bi mu meree jël na verre yi xaañ na ko palaat yi et tout mais foofu aussi tamit Lalla joxe na fa leçon bu am solo bi mu jëlee paaka bi ñu ko dama la war a jam ba ci ak mu ni jaroo ko sax ñu may tëj parfois mën nga mer ba sa mer yóbbu la nga def loo xam te ne ëllëg da nga koy réccu mais à chaque fois bu ngeen meree di leen jéem a calmé wu parce que tey bëri na jigéen ñoo xam te ni rey nañ seen jëkkër fi ñu toll nit ñi ñoom ñu ngi koy réccu te bañ koy def teyuñu ko dañu mer loolu moo leen yóbbaale. mais tamit ñun góor ñoo war a xool bu baax ni ñuy doxale am na yenn yoo xam ne bu ñu la ko annoncé automatiquement di nga réagir mais ñu jéem a contrôler waat bu baax a baax baax te ñun góor ñu xool ni ñuy doxale ak soxna yi te yenn soxna yi tamit kaawu mel nii ku mu dal bala ngay réagir nga xalaat bu baax parce que tey mën nga topp sa mère ba def dara sa boroom kër mu dee après yow nga yàq sa àdduna te lu ñuy wax rek ay du yam ci bopp boroom tey boo ko rayee di nga yàq sa àdduna mais tamit di nga yàqale àdduna ñeneen parce que sooraaleel say doom sooraaleel say waajur sa waa kër ak ñi nga xam ni ne ñoom ñoo la bëgg ñooñu ñëpp dinañ am lu leen metti donc bala ngay def dara na nga xalaataat bu baax a baax donc man je me disais que ni est-ce que tey sa boroom kër takk na soxna rek jar na yenn yi. wala jar na tey nga dem ba ci am depression donc bi may dóor seetaan film bi man loolu laa wax sama xel mais bi ma toogee analyser waat ma xam ni tey jii nii ni ko Cheikh defee keneen ku mu doonoon tamit dina la metti te am na yëf yi nu mu lay jëlee kaw mën na la jural lu ne donc certainement am na ñoo xamante ni dinañu wax que ni Cheikh góor la am na droit am ba ñeenti soxna loolu kenn weddi ko d'accord nañ ci te d'après ni mu waxee ak Lalla un jour il paraît que polygamie la si ne kon am na droit takk ba quatre femmes. mais façon bi mu ko defee loolu moom moo xaw a doy waar parce que loolu moom ça choc te des fois am na yoo xamante ne bu dalee sa kaw rek boo dëgërul tuuti mën na la jural lu ne te Cheikh li nga xamante ni si moom la def tey dina bouleverser vie am lu bëree bëree bëri parce que imaginer Cheikh ni mu doon dundee këram dund bu neex bi mu amoon ci digganteem ak soxnaam mais tey su fekkente ne Lalla carrément dafa tàggali ko ak sa gom ana tey Cheikh nan lay yenoo loolu ana Cheikh nan lay dundee ak loolu. te bu leen fàtte aussi que tamit Noura nan lay dundee après moom sans yaayam Cheikh lan lay wax Noura donc am na ay questions yu bëri yoo xamante ni mi ngi juddu ci côté boobu et finalement sax am na ñeneen ñoo xam ne il vont se poser la question à savoir est-ce que réellement Marème jar na lii donc affaire yi doy na waar alors lii ay leçon la yoo xamante ni kenn ku ne war na ci mën a jànge nit ku ne bala ngay dugg ci dara war nga mën a analyser xool conséquences parce que Cheikh Lalla yàgg na ko mettre en garde mais moom pour moom yooyu yëpp mooy loolu fiiraange la bien vrai que fiiraange tamit mi ngi ci biir mais je pense que ni mu forcante nii ba dem def li mu bëgg a def c'est ça qui pose problème mënoon na xool beneen méthode boo xamante ni sëy bi dina am te du agsi fii yëpp ci sama xalaat bu gàtt. donc loolu moo nekkoon point bi nga xam te moo nu gën a marqué ci épisode vingt sept bi mais on a également noté que Racky instant bi mi ngi free mi ngi waxtaan ak Moustapha et tout te loolu noonu ku ne gis na ni Moustapha daanaka lépp moom moo ko liggéey jël na ko boole ko ak benn psychologue mu dem fa waxtaan ak moom mu confier ko histoire am mu xelal ko wax ko ni mu war a doxale ba mën a surmonter épreuve boobu noonu et donc ñu leen di rappeler aussi que partage dafa doon loo xamante ni dafa baax nit parce que day tax li nga yanu woon lu mu diis diis diis day mujj oyof parce que parfois nga am loo xamante ni di nga ko dund xëy na tey doo ko mën a partager ak ñu la jege mais war nga mën a dem ci koo xamante ni si nii bon spécialiste la ci métier bi nga mën ci waxtaan ak moom moo la teg ci yoon wax la nii ak nii boo ko doxalee lii ak lii ngay def bu la mënee jox sax ay médicament pour nga mën a surmonter épreuve yooyu noonu. donc c'est pourquoi aussi il est bon parfois tamit soo amee xarit boo xamante ni si ni am nga ci moom confiance nga man ko confier sa yenn nii moom mën la ko téel di la conseiller aussi dina tax lu bari loo xamante ni si nii tegu woon na sa kaw dina wàññeeku bu baax a baax donc di leen waxaat encore une fois que képp koo xam ne seetaan nga vidéo ba pare boo ci amee xalaat boo xamante ni ça concerne la série maîtresse d'un homme marié mën nga ñu ko envoyer par message vocal suñu whatsapp comme ça incha allahu ñu mën ko jàllale ba ñëpp jot te liggéey bi ñuy def aussi tamit soxla nañ ci xalaatu ñëpp parce que xel du doy te lu kenn mën ñaar koo ko dàq donc ñu ngi taataan xalaatu ñëpp alors tey vidéo boobu la indi loon di dellu encore une fois di tuub di jégalu lépp loo xam ne wax nañ ko fi mu laal nit ñi ngi tuub bu baax a baax di jégalu te xam ne nekkul suñu intention liñ ci jublu rek mooy tiire ci ay leçons de vie pour ñëpp mën ci jariñ wax ji nag lépp lu fi jub ngeen xam ni ndimbalu borom bi la mais lépp lu dëng ci man mii di wax la ñu ngi tuubaat encore une fois di leen jaajëfal te di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah